urgent urgent urgent sama gars yi gannaaw nag première jaxasoo bi ci diggante kii di Sa Thiès ak Reug Reug gis nañ ne tey noonu la juddoo parce que ci première laale bi seen diggante ñoom ñaar ñëpp xam nañ ne kii di Reug Reug def na catapie mais nag catapie yi nga xam ne tey Reug Reug def na ko ñu bëree bëri accordé wuñ ko gannaaw décision ki nga xam ne moom mooy arbitre bi la def daal di bàyyi ñu continuer li nga xam ne moom mooy combat bi ci seen diggante ñoom ñaar deuxième jaxasoo bi nag maanaam seen deuxième laale diggante Sa Thiès ak Reug Reug gis nañu kii di rëg-rëg moom moo daal di battre ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès ci lu amul benn werante mais nag décision bi ba tey des na parce que itam il faut kon recours dina am ndaxte tey ci première jaxasoo yi dinañ leen defal li nga xam ne moom mooy image bi ngeen jàkkaarloo ak moom ci quatre appuis yi nga xam ne rek ñëpp janoon nañ ko jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy rëg-rëg donte le gis nañ ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès doon na dem ci arbitre bi pour nag daal di koy signaler que ne rëg-rëg def na li nga xam ne moom mooy quatre appuis mais nag ki nga xam ne moom mooy arbitre moom mayu ko sax fu mu daal di def li nga xam ne moom mooy ay explication explication yooyu nag nga xam ne tey ñu ngi ko doon xaar ci ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès loolu moom moo waral arbitre daal leen di boolewaat ci biir géew bi ba tax bi ñu demee ci deuxième bi ki nga xam ne moom mooy rëg-rëg dafa daal di battre ki nga xam ne moom mooy Sa li tax mu battre ko nag ay question la ay point la yoo xam ne tey dina ñëw ci li nga xam ne moom mooy jàngat yi incha allah wante nag bi la yoon gis nañ ki nga xam ne mooy arbitre bi jox na victoire bi ki nga xam ne moom mooy rëg-rëg kon nag rëg-rëg moom mooy fanaanoo li nga xam ne moom mooy victoire bi wante est-ce que bu ko fanaanoo tamit dana dem oui ou non parce que itam nag li nga xam ne moom mooy recours il faut kii Sa Thiès ak ay mbokkam dinañ ci yi leer na ñi rawatina nga xam ne tey ñu moom mooy lamb ji moom mooy capture yi nga xam ne tey jot nañ ko am depuis ba réseaux sociaux amee ba tey kenn sonnatul ci li nga xam ne moom mooy def li nga xam ne moom mooy vaar vaar boobu nag indi nañ ko donte ne leerul noonu am na si yenn capture yoo xam ne ñu leer nañ la yuy wane que ni ki nga xam moom mooy rëg-rëg na li nga ne moom mooy quatre à kon nag décision bi nga xam ne tey at bi jël na ko jàpp nañu dina si delluwaat gannaaw parce que nag quatre à pied yi leer na naañ suma gars yi deen jaajëfal di wax ngeen woy di abonné ñu dikkaat